kon ñu fas yéenee ñëw ci bind bu ñaareel ci téereb almuridiya téere bii di almuridiya bu sëriñ murtada seex faati fall ngi tàmbali woon darsu bu njëkk bi xamle woon ki bind téere bi mooy kan xamle woon na nit téere bi bunt yi nga xam ne bëgg na ko cee jàngale tàmbali woon ci muxaddima bi nga xam ne sëñ bi doon na ci wax lan moo ko tax di bind téere bi ban jubluwaay la ci am ak ya aju biñ ci noppee tàmbali woon nañ bunt bu njëkk bi mooy abdullahi wa xadimu rasulillah mu doon ci leeral gane àdduna ak sëñ bi ak melokaan yi nga xam ne melo woon na ko ci meloy jikko yu kawe waaye nekk gim nekk jaamub yàlla di liggéeykatub yonente bi te loolu nekk loo xam ne ci wax ci jëf yépp sëriñ bi fu mu toll da doon toroxlu di ñaan suñ borom defal ko ngëneel lu kawe loolu ngir ne mooy garaat bi gën a kawe bu nit ku baax di sàkku mu indi ci ay way yu bari ay bayit yu bari yoo xam ne sëriñ bi da ci doon ñaan loolu yàlla def ko muy abdullahi di xadimu rasul kon bind boobu lañ jotoon a jàng ñu taxewa woon ci nag daawatuhu mustajaaba mooy loolu mu doon ñaan yàlla yàlla def ko muy abdullahi wa xadimu rasul yàlla nangul na ko ko sëriñ bi wax lu bari luy wane na yàlla nangul na ko ko foofu la ñuy tàmbalee tey mu tàmbalee ci wa innani abdun li rabbi wa xadim lil muntaqa alladi lasi siyaadatu tadum man day jaamub yàlla la di liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne day nekk ab sàng ba faw moo tax sëriñ bi wax ne ñaan googu suñu boroom da koo nangu yàlla barkeel ko asamaan ak suuf yépp di waaye di wayantoo manam di waxtaane daal jaloore yi ki nga xam ne mujj na nekk Abdullahi tey xadimu rasul tur woowu mujj nekk turam bi nga xam ne moo gën a siiw nekk xàmmikaayam màndarga bi nga xam ne moom la ko ñëpp xame tudde ki nga xam ne moom la ko suñu boroom tudde mu am ci mbégte mu rëy lool jàppee ko it kóolute goo xam ne da ko war a sàmm jox ko lépp lum yayoo ba yàlla gërëm ko mu gërëm yàlla loolu yi mooy ci tudde gi ko yàlla tudde ca la waxee ne sàmmaytani qataan bi xabdikal xadim yaa man yaquulu lii bushaaraatin tadum mu wax suñ boroom ne ko yaama tudde bu wér a wér sab jaam di liggéeykatub sab yonente yow mi nga xam ne yaa may wommatal ay mbégte yuy sax ba fawu ba tey wax ci beneen barab ne faraxanil akramu tafrixan yaduum bi ànd na nii xellun wa xibbun yàlla mi gën ñëpp gën a baax ñépp bégal na ma bégal goo xam ne day sax ba faw lim ma bégale mooy man ab xaritam la di ab soppim di liggéeykatu bu bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu wax ne raditu xamman jaadalii bi kaw ni xabdan xadiman xabdan lahu xadima kaw ni gërëm naa yàlla mi nga xam ne day moo ma may moo ma defal may ab jaamam di liggéeykatu ngeen ji mindeef sëriñ bi wax ba tey ne jaxaltani xabdal ilaahi wa xadim rasulika allasi siyaadatu tadum def nga ma may jaamub yàlla di liggéeykatu sa yonante bi nga xam ne mooy sang bu ak càngam di sax ba faw nga xam ne ay waxam ak ay jëfam lépp jaamu yàlla la lépp liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa la ñaari malaayika yi nga xam ne ñoom la yàlla féete lañuy bind jëfi jaam bi ak yi waxam muy raqiib ak atiit ñoom ñaar ñëpp dañ koy seereel loolu guddeeg bëccëg ndax ñoom lu nit ki def wala mu wax rek lañuy bind duñ bind lu amut te moom yëngutook dal yi bàyyikoo ci moom yépp génnutoon ci ñaar yooyu loolu moo tax mu wax ne inni abdullahi jalla wa xadiim lil mustafa lasi atilaauhu yaduum yashhadu lii bisaa raqibun wa atid fi kulli yawmin hinda dil arshil majid man de jaamub yàlla la mu màgg mi di liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa mi kawe te loolu nee na raqib ak xatiit dañ ma koy seedeel ca suñ boroom bis bu set nga xam ne ay noonam yi nga xam ne nee ñoo ko génnewoon yóbbu ko ca maayomba doonte nanguwuñoo seede it leer na leen nañ ne moom kii jaamub yàlla la di liggéeykatub yonente bi waaye du jaamu kudut yàlla du liggéeyal kudut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd ak moom ay at yu bari yoo xam ne lépp moom ci jaamu yàlla ak ci liggéeyal yonente bi rek la ko wéyal moo xam ci géej gi la moo xam ci àll bi mu nekkoon ku tumuraanke ci seen biir koo xam ne mboolem àq yi doomu aadamay soxla ba ci yi gën a suufe yi nga xam ne kuy dund mënu koo ñàkk sax ñoom jéem nañ koo jël ci moom waaye loolu lépp rek taxul nag ñu dox digganteem nekk di jaamub yàlla tey liggéeykatu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ok bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala kon téere bii di almuridiya bu sëriñ murtada cheikh faty fall ngi tàmbali woon darsu bu njëkk bi xamle woon ki bind bi mooy kan xamle woon na nit téere bi bunt yi nga xam ne bëgg na ko cee jàngale tàmbali woon ci muxaddima bi nga xam ne sëñ bi doon na ci wax lan moo ko tax di bind téere bi ban jubluwaay la ci amak ak ya ci aju biñ ci noppee tàmbali woon nañ bunt bu njëkk bi mooy abdullahi wa xadimu rasulillah mu doon ci leeral gane àdduna ak sëñ bi ak melokaan yi nga xam ne melo woon na ko ci meloy jikko yu kawe waaye nekk gim nekk jaamub yàlla di liggéeykatu yonante bi te loolu nekk loo xam ni ci wax ak ci jëf yépp sëriñ bi fu mu toll da doon toroxlu di ñaan suñ boroom defal ko ngëneel lu kawe loolu ngir ne mooy garaat bi gën a kawe bu nit ku baax di sàkku mu indi ci ay way yu bari ay bayit yu bari yoo xam ne sëriñ bi da ci doon ñaan loolu yàlla def ko muy abdullahi di xadimu rasul kon bind boobu lañ jotoon a jàng ñu taxewa woon ci nag daawatuhu mustajaaba mooy loolu mu doon ñaan yàlla yàlla def ko muy abdullahi wa xadimu rasul yàlla nangul na ko ko sëriñ bi wax lu bari luy wane na yàlla nangul na ko ko foofu la ñuy tàmbalee tey mu tàmbalee ci wa innani abdun li rabbi wa xadim lil muntaqa alladi lasi siyaadatu tadum man dey jaamub yàlla la di liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne day nekk ab sang ba faw moo tax sëriñ bi wax ne ñaan googu suñu boroom da koo nangu yàlla barkeel ko asamaan ak suuf yépp di waaye di wayantoo maanaam di waxtaane daal jaloore yi ki nga xam ne mujj na nekk abdullahi tey xadimu rasul tur woowu mujj nekk turam wi nga xam ne moo gën a siiw nekk xàmmikaayam màndarga bi nga xam ne moom la ko ñëpp xame tudde gi nga xam ne moom la ko suñu boroom tudde mu am ci mbégte mu réy lool jàppee ko it kóolute goo xam ne da ko war a sàmm jox ko lépp lum yayoo ba yàlla gërëm ko mu gërëm yàlla loolu yi mooy ci tudde gi ko yàlla tudde ca la waxee ne sàmmaytani qataan bi abdika alxadim yaa man yaquulu lii bushaaraatin tadum mu wax suñ boroom ne ko yaa ma tudde bu wér a sab jaam di liggéeykatub sab yonente yow mi nga xam ne yaa may wommatal ay mbégte yuy sax ba faw ba tey wax ci beneen barab ne farraxanil akramu tafrixan yadum bi ànd na ni xellun wa xibbun wa yàlla mi gën ñëpp gën baax ñépp bégal na ma bégal goo xam ne day sax ba faw lim ma bégale mooy man ab xaritam la di ab soppem di liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu wax ne raditu xamman jaada lii bi kaw nii xabdan xadiman xabdan lahu xadima xayril kaw ni gërëm naa yàlla mi nga xam ne day moo ma may moo ma defal may ab jaamam di liggéeykatu ngeen ji sëriñ bi wax ba tey ni jaaltani xabdal ilaahi wa xadim rasulika allasi siyaadatu tadum def nga ma may jaamub yàlla di liggéeykatub sa yonante bi nga xam ne mooy sang bu ak càngam di sax ba faw nga xam ne ay waxam ak ay jëfam lépp jaamu yàlla la lépp liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la ñaari malaayika yi nga xam ne ñoom la yàlla féete lañuy bind jëfi jaam bi ak i waxam muy raqib ak atiit ñoom ñaar ñëpp dañ koy seereel loolu guddeeg bëccëg ndax ñoom lu nit ki def wala mu wax rek lañuy bind duñ bind lu amut te moom yëngutoog dal yi bàyyikoo ci moom yépp génnutoon ci ñaar yooyu loolu moo tax mu wax ne inni abdullahi jalla wa xadim lil mustafa allasi atilaauhu yaduum yashhadu lii bisaa raqibun wa atid fi kulli yawmin hinda dil arshil majid man de jaamub yàlla la mu màgg mi di liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi kawe te loolu nee na raqib ak xatiit dañ ma koy seereel ca suñ boroom bis bu set nga xam ne ay noonam yi nga xam ne nee na ñoo ko génne woon yóbbu ko ca ba donte nanguwuñoo seede it leer na leen naññ ne moom kii jaamu yàlla la di liggéeykatu yonente bi waaye du jaamu kudut yàlla du liggéeyal kudut yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ànd ak moom ay at yu bari yoo xam ne lépp moom ci jaamu yàlla ak ci liggéeyal yonante bi rek la ko wéyal moo xam ci géej gi la moo xam ci àll bi mu nekkoon ku tumuraanke ci seen biir koo xam ne mboolem àq yi doomu aadamay soxla ba ci yi gën a suufe yi nga xam ne kuy dund mënu koo ñàkk sax ñoom jéem nañ koo jël ci moom waaye loolu lépp rek taxul nag ñu dox digganteem ak nekk di jaamub yàlla tey liggéeykatu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi sallam loolu mooy li mu wax ne alimatil a'daa'u xindal muxriqaat bi anni bi annani abdu munilil xaariqaat baana lahum kawni xadiimal muntaqa alayhi taslimaaka yaa man intaqa mu wax ne noon yi day xam nan ci géej ya man jaamub yàlla miy joxe xar baax rekk la tey liggéeykatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñu wax ne sëñ bi moom li muy bindee dafa roy alxuraan ba nga xam ne ñaaree baat yi muy jëfandikoo da koy tànn bu baax nga xam ne baat bu mu fa teg li ci ëpp rek booba rek moo foor a tege moo tax fi mu ne foofu mu ne abdu mu nii lil loolu rek moo war a ñëw foofu ndax dane bi mu nekkee ci biir géej gi ca biir noon ya suñ boroom xamal na leen ne moom mii jaamub yàlla mii defal xar baax la lu tax mooy mboolem jaamu yàlla ya nga xam ne moom la def foofa ci ay jaamu yàlla yu rëy ñoom moom maanaam yépp dafa nekk jaamu yàlla yoo xam ne suñ borom da caa feeñal ay xar baax masalan bi muy lal der bi ci géej gi di julli te ñoom mu leer leen ne kii lii muy def bakkanam mën na caa des nga xam ne dafa mel ni kuy xaru ngir jaamu yàlla kon ñoom ña gis loola leer na leen naan ñi ne kii jaamub yàlla moo tax mu ne ca biir géejee ñoom xam na ne man jaamub yàlla la waaye nag yàlla moom mu nga xam ne mooy dawloo géej gi moo def ci aada géej yenn barab yi ku ca taxaw lapp moo xotti aada joojee def géej gi labalu ko ba tey du ci julli googu kese waaye ci mboolem jaamu yàlla yu bare bari barab yu bari yoo xam ne fam fa jaamoo yàlla ñu gis ko ñoom dana leen leer ne kii moom li ko yàlla jaral jëralu ko kenn ndax bakkanam mi ngi ci xottu gerte ca foofa waaye nag suñ boroom wan leen fa xar baax goo xam ne moo tax nag mu jëfandikoo baatub abdu mu nii lil xaarixaat jaamub yàlla mi nga xam ne mooy joxe xar baax ndax ñaar yooyu yëpp leer na ci loolu euh, ba tey sëriñ bi àgg gi àgg ci daraja ju kawe jooju muy nekk di liggéeykatu bu yonente bi da koo jàppe woon muy ak texe goo xam ne suñ boroom da ko ko bindal muy texe gu sax fu mu toll mu ci daan sant yàlla nag loolu mooy li wax ne saxaadat yi bi xayri maxwin kutibat wa kaw ni yàlla xabdal xadiima xad sabat sama texe day dañ ko bind muy sax ba faw te dootul far nekk gi ma nekk di jaamub yàlla tey liggéeykatub yonente bi it sax na ba tey sant na ci suñ boroom wax ne xamittu ilaahi alladi xidmati almujtaba si sumuh maa ngi sant sama boroom mi nga xam ne moo ma ñoddi jëme ma ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam googu ko yàlla defal da ko daan waxtaane fu mu toll di ko wax lu bari ci xasidaam di ci sant mooy lali mu wax ne aqulu da tahaddusin bi niami wallaha asalu qabula xidami alhamdulillahi alladi xad kaana lii summa bi xidmati nabi jaadali xidmati afdalil baraya nasaba wa xuluxan wa mansiban wa xasaba mu ne maa wax di waxtaane xéewal yu rëy yi nga xam ne moom la ma yàlla defal te di ko ñaan mu nangul ma sama liggéey li may wax nag mooy maa ngi sant sama boroom mi nga xam ne nekkal na ma defal ma may liggéeykatu wenante bi liggéeykatu kook nga xam ne moo gën ci mbindeef yi ci askan ci jikko ci daraja ci ngor kon loolu mooy bunt boobu xam ne day mottali bunt bi mu tàmbali woon ne sëñ bi moom dafa jóg rek fas yéenee nekk Abdullahi Xadimu Rasul di ko ñaan di dox wuti ca ba suñ boroom nangul ko ñaan googe sëriñ bi sant ko ci bu baax a baax fa yéene nag yanu kóolute googee ba àggale ko fa ko suñ borom bëgg mu àggale ko fa lu jëm ci wàlluk al ibadatu wal xidma muy jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi dafa nekk bunt bu yaatu lool ci wooteb sëriñ bi ndax daanaka mooy léppi diine nag dara génn ko moo tax sax sëriñ bi yitte woo woon ñaari tur yooyu muy nekk abdullah nekk xadimu rasul waaye ñaari baat yi muy al ibada wal di feeñ lu baree bari ci am njàngaleem ak ciy mbindam moo tax nag sëriñ bi génn ci loolu dana ci yaatal ba tey looloo tax bi mu noppee ci bunt boobu mu ñëwaat ci beneen bunt boo xam ne ibadatuhu lillahi la xam nga léegi sëriñ bi nekk na abdullahi waaye nan nan la nekkee abdullah naka la ko doon jaamoo nan la ko gëme loolu moo war a ñëw ci bunt bi ñu nekk ni mu tàmbalee ko ci wajjahtu wajhiya wa ashkuru laka bil mustafa jut bi kawni abdaka wajxal xayaati ibadatan taduum lahu bushaaratin tuqaddimul xadim mu wax ne sama lépp jëmale naa ko ci yàlla di ko sant moom suñu borom di ñaan suñu borom ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa mu defa may ab jaamam mu def sama dund gépp nag muy jaamu yàlla gu sax jaamu yàlla li ci jiitu mooy al ubudiya moo tax mu ne jaamu yàlla dafa am ay darajaat daraja bi ci njëkk mooy boo al ubudiya al ubudiya nag mooy nangul yàlla saxal ne yàlla rek mooy yàlla mooy yeyoo ñu jaamu ko waaye saxalal ko ar rububiya mooy nangu ne mbir yi muy mbindee fi moom rek moo ciy def ak dindi waaye du lu dul moom loolu nag bu amee nit ki daal di toroxlu topp ci gannaaw coobare suñu borom lu yàlla dogal muy lu baax muy safaan muy lu neex muy lu naqari loola lépp daal di koy neex muy bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla di jàpp ngir yàlla di bàyyi ngir yàlla loolu mooy al ubudiya al ubudiya ci gàttal daal mooy nit ki nangu ne moom ab jaam la nangu ne yàlla mooy kilifaam nangu ne def ak a dindi ak ñu jaamu la yàlla rek moo ko yeyoo kon lum def nag daa war a neex nit ki loolu mooy al ubudiya daraja boobu nag moom sëñ bi da cee ràññeeku bu baax a baax wax na ne shahidtu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seede naa ne yàlla mooy borom mbindeef yi yonente bi sallallahu alayhi mooy ndaw li mu yónni ba tey ne subhaanahu rabban li maslakin sadid hada bil ixtiyaari safwatal abid mu suñu borom day mooy buur bi nga xam ne moo gindi jaamam ñi teg leen ca yoon wa jup te loolu wane ne ne moom mooy buur waaye ware ne ne ci coobare moom mooy def ak mooy xool kenn ku ne yoon wam ko tànnal mu xirtal ko ca المالك الديان ذي العرش المجيد المبدئ المعيد ذي البطش الشديد الخالق الإنسان والجن معا ليعبدوه مخلصين أجمعا yooyu yëpp day wane suñ borom nekk gim nekk buur nekk ki nga xam ne mooy def ak dindi moo moom lépp ñëpp war koo jaamu ba tey ginnaaw bi mu tuddee baat yu mel noonu nga xam ne jullit ñëpp ko bokk moom mooy nangul yàlla loolu nangul ko ar rububiya ak al uluhiya muy nekk gim nekk yàlla ak def gi muy def dindi moom ci boppam nag moom sëñ bi ci boppam loolu nan la ko defee ak nan la bàyyee boppam ak yàlla wax na ne yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana lisat huna anni raditu bika rabban xaala bayni wa bayna maakirin qad saala wax suñu boroom woo ko juróomi yoon ne ko nag ma seereel ne gërëm naa ne yow yaay sama boroom yaa dox sama diggante képp koy war ak a pexe wax allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarrada yàlla mooy sama borom mooy sama kilifa mooma musal ci képp ku fetteerlu wax ba tey ne raditu billahi taala rabba wa bi muhammadin rasulan xibba gërëm naa ne yàlla mooy sama boroom yonente bi alayhi wa sallam mooy ndawam mooy sama soppe wax ba tey ne allahu rabbi wa waliyi abada abadtuhu wa xayrahu lan abuda yàlla mooy sama boroom mooy sama kilifa ba faw moom kese laay jaamu duma jaamu keneen ku dul moom allahu rabbi zahiran wa baatina xaysu akunu raxilan wa yàlla mooy sama borom biir ak biti fu ma mën a nekk bu ma nekkee fu ma dëkk ak bu ma tukkee nekk feneen maanaam fu ma mën di nekk daal yàllaay sama borom ci biir ak ci biti rek kulli li rabbi fi sirrin wa fi alanin walastu asalu gayra naafiillahi sama lépp ci biir ak biti yàlla ko moom ci yàlla rek la jëm te duma ñaan duma woo kudul yàlla mi nga xam ne moom rek mooy jariñ wax ne bi kaa atasamtu fakk fi nii kulla darar bi jaahihi waliya yassiril busar yàlla ci yow laa sukkandiku ci yow laa wéeru nag ma musal ci lor ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daane ko xatta akuna aabidan shakura ridan habiban muflihan mashkura ba damay mujj nekk sab jaam boo xam ne dalay sant lépp loo dogal mu neex ko di sab soppe di ko ñu gërëm ba tey mu feddali gërëm gim maanaam nangu gim nangu ne yàlla képp lañu war a jaamu yàlla képp la war a toroxlul yàlla képp la war a nekk ci ginnaawam wala it waxaan na ci yeneen bayit yu bari inni nawaytu an akuna abda laka wa an askura rabban jidda yéene naa ma nekk di sab jaam yow suñu boroom waaye di la sant it yow suñu boroom cant gu wér madda ilayya fadlahu alazima wala mu walam azal abuduhu taasima sama borom wommatal na ma ngëneelam waaye fu ma toll nag di ko jaamu ngir màggal ko mu wax ba tey ne walastu abudu dawaaman xayraka wa ji xaysu akunu xayraka duma masa jaamu kenn ku dul yow te fu ma mën a nekk saw yiw rekk laa fa yaakaar wax na ba tey ne abuduhu inchaa jalla li wafaat bi dikrihi lxakimi min xayri iltifaat dama koy jaamu moom suñu boroom ba ba sama faatu di ñëw ci alquraanam ji te duma geestu leneen lu bokkut ak moom wax ba tey ne abudu rabbiya bi xayri sunani baada alfaraidi wa yuli minani sama boroom dama koy jaamu ci ngen ji sunna yonente bi waaye gannaaw farataya nag moom fu mu toll di kaweel samay xeewal moo tax sëñ bi taarif jàll ne noonu la demee sëriñ bi da daan jaamu yàlla cib tukki ab cib teewaayam ci am réew réewam ak fan ko yóbbu woon di ko jaamu moom képp ba ci mujjug dundam nga xam ne fu mu toll mi ngi ci diggante farata yeeg naafile yi ci taxaw guddi ci woor bëccëg ci jëfee njàngalem alxuraan ak dénkaaney sunna di jaamu yàlla ngir xemmeem ak ngir ragal weesu na loolu sax di jaamu yàlla ngir sopp ndax loolu mooy daraja bi féete kaw ci ñoom yaa xayra maabudin bi xubbin ubida nam ko waxee ca nuuru daareeni mu ne nag dafa jëloon bakkanam lépp léppam dénk ko yàlla mel ni kon delloo na mbir ma ka ko yayoo maanaam jox na xalaga ka ko ràbboon wala waxiinu arab la waaye mooy jox na mbir ma ka ko yayoo rek sëriñ bi ci loolu mu wax lishad bi anni qad jacaltu nafsi laka wadixatan fakakta absi muctasiman billahi wa rasuli salla alayhi waltasuq mamuli nang ma seedeel yow suñu boroom ne sama lépp def naa ko ndénkaan ci yow jàppandu ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, yàlla nag nangul ko muy bu di googu la ca jiitu mooy gëm ko ak wéetal ko moo tax nag mu teg ci beneen diggante maanaam beneen bunt boo xam ne day wax ci wàllu gëm yàlla ak wéetal ko nan la ko sëriñ bi defe woon mu ne sëriñ bi gëm gim gëm yàlla dafa nekkoon gëm gu dëgër nekk ko wóolu yàlla wóolu gu rëy naka noon yi la gëme woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran aqiida bu kawee boobu mu amee woon nag nga xam ne daanaka amut baat yu ko mën a melal sëriñ bi da koo firndeel ci ay jëf yoo xam ne yuñ mën a teg loxo la yuñ mën a seede ci lislaam la lislaam bi nga xam ne daanaka moo ko xañ lu ne maanaam lum baax la lu ne rek joxe na ko ngir aar lislaam ngir sàmm lislaam mooy nag kon nañ diglu lenn ci ay waxam mu war ñu gëm gi nekkoon ci xolam ak gi nekkoon ci jëmmam maanaam ci biteem gëm gi ci xolam la nekk jëf ji nekk ci cëram waaye nag ci xalimaam ci la koy wane moo tax mu ne nañ déglu lenn ci bay itam billahi amantu wa wajhi uslimu habdan lahu wali nabiyi mu ne gëm naa yàlla te it jébbal naa ko sama bopp di ab jaamam di liggéeyal yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ne billaahi amantu wa bil qur'aani wa bi rasulillahi bat i sha'ni gëm naa yàlla gëm naa alqur'aan gëm naa bi sallallahu alayhi wa sallam billaahi uuminu wa wajhi uslimu lahu wa bil ihsaani zayni axtimu gëm naa yàlla wala moom képp laa gëm te moom dong laa fiitale sama jëmm muy lislaam te ñaar yooyu dama koy mottalee ak rafetal loolu min nañ ko ci mbindum sëñ bi diggante liimaan ak lislaam ak lixsaan nga xam ne mënees na ko tudde athaalusul islaam yi mooy ñetti keno yi nga xam ne lislaam bu doon ab taabal la ñoom ñoo ko téye bu ci benn dammee du taxaw ñett yooyu sëñ bi da koy fedd daanaka du wax ba àggal te fedd liwu ci ne ñett yooyu lañ war a taqoo ba tey sëriñ bi dafa xeroon lool ci wéetal yàlla ak dàqal ko lépp luy niroog bokkaale ci mbooleem ay façon moo xam bu nëbb la moo xam bu feeñ la moo xam bu woyof la moo xam bu diis la wax na shahidtu anna allaha rabbun waahidu wali bi laa yamiilu jaahidu seede naa ne yàlla benn buur képp la amul beneen buur bu bokkut ak moom bare waaye nag moom itam aar na mu ba kenn kuy weddi du jëm ci sama wet allahu jalla ahadun allahu assamadu alladi badat xulaahu yàlla mu màgg mi ne na kenn la mooy kenn ki nga xam ne moom rek la ñëpp yu jublu ci aajo waaye mu motli ko nga xam ne ñaari bayit yooyu maanaam qul huwa allahu ahad la ndax bi mu ne allahu jalla ahadun illaahu assamadu alladi badat xulaahu mu teg ci ne laysa bi walidin mu yulad walam yaxtaj li sayin wa man hudaahu lam yulam loolu mooy qul huwa allahu ahad mooy yàlla kenn la moom rek la aajo yëpp di jëm te moom jurul kenn kenn juru ko maanaam bàyyi ko wut ci dara dara bàyyi ko wut ci moom kenn du nawleem aajo wut kenn wala lenn te ñépp a ko aajowoo ginnaaw bi sëriñ bi waxee waxin woowu nga xam ne waxiin wu matale la ci wàllu tawhiid mu wax nag waxin woo xam ne day mel ni moom ci boppam la moom ci boppam loolu nan la ko dundee nan la wéetale yàlla nan la ko saxalale mboolem meloy mat yi meloy taar yi meloy màgg yi mu wax ne allahu rabbi ahadun allahu assamadu alladi badat xulaahu yàlla mooy sama borom mooy kenn mooy ki nga xam ne aajo yëpp ci moom la jëm bayit woowu sorewut ak ñaari bayit yali ko jiitu woon tax mu mot li ko ba tey lam yalidillaahu walaysa bi walat xalaqa kulla walidin wa ma walat bàyyi ko wul ci dara dara bàyyi ko wut ci moom te moo bind képp kuy jur ak jur laa li wujudihi ibtidaa wala intihaa muxaalifun wa duuxinan xan ishtihaa almulku walhamdu li rabbiya waxda kamaalahu jalla wa azzal waxda mu saxal foofu meloy mat yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax ci suñu boroom mooy tàmbalewut fen du yem fen ku wuuteeg mbindeef yi la ku doylu ci boppam la moom rekk moo amee nguur moom rek moo yeyoo ñu sant ko waaye moom rekk moo wéet nga xam ne amutum ñaareel buur boobu nga xam ne moo mat mooye yooyu di ko sujjootal di ko rukkool di ko toroxlul di aajowoo jëm ci moom moo tax mu wane ne moom loolu yépp ci yàlla la ko jëmale wax ne zulliya lil fardi allazi lam yalidi walaysa mawludan ataaba xaladi sama toroxlu mokk mokkul lépp rek maa ngi ko jëmee ci yàlla moomu nga xam ne jurut kenn kenn juru ko mu sellal samam xel ba tey mu ne nag nii la sëriñ tuuba meloon ci nekk doj wu yëkkatiku wu dëgër woo xam ne du sujootal kudut yàlla du toroxlu lu kudut yàlla nanguwut nguuru kudut yàlla mi nga xam ne nguuram tàmbalewut fenn du yem fenn nanguwut benn autorité benn doole boo xam ne da koy féete kaw bu dul yàlla nanguwut a saxalal yéefar yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te di àtte woo àtte bu yàlla gërëmut nanguwutoon dara ci seenu àtte ba loolu moo ko yóbbee lu ko dal waaye ci biir ubudiya muy nangul yàlla lu ci yàlla ak féetale ko say mbir da cay fés lool moo tax bunt bi mu ci teg di wax ci loolu moo tax mu ne buur bii nga xam ne mooy kenn mooy ki nga xam ne moo mën a faj aajoy jaam ñi mooy ki man lépp dara tawu ko mooy ki sañ lépp moo taxoon nag sëriñ bi wéeru ci moom ci lépp nga xam ne ci moom lay jàppe ci moom lay bàyyee maanaam ku muy jàpp yàllaay tax mu jàpp la ku muy bàyyi mooy tax mu bàyyi la ci moom lay bëggee ci moom lay bañe waaye du ci ngir bàkkanam loolu nee na moo nekkoon aw doxalinam ci ay jëfam ak ci waxam ak ci dénkaane yi mu doon dénk murid yi loolu yépp rek loolu feeñ na ci bokk na ci lim ci wax ne antal wakiilu alladi tafaytu bihi fi dafxi wal jalbi yaasal xalqi yallaahu mu wax yàlla ne ko yow yaay wiiruwaay bi nga xam ne doy nga ma sëkk bu ma dee ñoddi ak bu ma dee jañ lu ma bëgg a xëcc ak lu ma bëgg dàq daal yow yaay wiiruwaay bi nga xam ne yow laa ci doyloo yaa ma koy defal wax suñ borom ba tey ne ko anta wakiili fa alayka attakil wala yadiihu man alayka yattakil yaay sama wéeruwaay ci yow képp laa wéeru te ku wéeru ci yow nag du sànku wéeru na ci ku mat a wéeru wax ne huwa alladi lam ara gayrahu wala araahu fi cheyin hada wa wala mu ne yàlla mooy ki nga xam ne gisuma kenn te duma gis kenn ci mbir mum man di doon kudul moom mbir mum doon rek yàlla dong laa cay gis waaye duma ci gis leneen lu bokkut ak moom wax ne bihi uhaadi wa bihi uwaali wa huwa taala al waali ku may noonool ci yàlla laa lay noonool ku may méngool di la jàpp ci yàlla laa lay jàppe ndax moom rekk moo kawe mooy kilifa moo ko jar wasiqtu billahi taala abda lahu wali xayra xuyurin abda mu ne dëgërloo naa yàlla di ab jaamam moom yàlla mu tànnal ma ngeen ji yiw ya sëñ bi lu ci ne tànniiti tànneet ja moom la ko ca suñ boroom jox ba tey mu ne abdaali alxabiiru maali abda fa sirtu lil xabiiri jàlla abda yàlla mi nga xam ne amul kumpa dara na buur ci moom lépp leer ci moom naññi moo ma feeñalal lam ma feeñalal tax nag may ab jaamam moom moom xobbiya fillaahi wa buxdi fiihi lii aw salaa maa kuntu astafiihi doon gi ma doon koo xam ne ci yàlla rekk lay bëgg ci yàlla rekk lay bañ moo ma may li may wut ci yàlla loolu yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon na ko boole woon na ci lii tax nit ki yëg neexitu gëm yàlla mooy lu muy bëgg ak lu muy bañ yàllay képpay tax lahu irtixaali wa ilayhi sakani wa kaana lii fii mawdihi wa maskani nee na ci yàlla rek laa jëm maanaam bu ma dee tukki bu ma dee dem ak bu ma dee toog bu ma nekkee fi ma dëkk fu ma man di nekk daal lépp rek yàllay tax waaye du doon ngir bàkkan wala leneen nga xam ne kon ci moom yàlla moom ci la daan wéeru ci ak ñoddi ak ci jañ ci moom lay wéeru ci tartar ak ci yaatug dund mooy kaaraangeem li woor li nga xam ne ci lay aaroo ci ay noonam loolu mooy lim wax ne mun na bit bi duxuli saakina fii xisnika alxasiini minhum amina na suñ borom nag ma xéewale le ma dugg ci biir sa kaaraange li nga xam ne mooy kaaraange li woor nga xam ne ku ci dugg dugg rek dal di mën a mucc ci noon ya wax yàlla ne ko inni ja'altuka fi daarini yaa siqati xisnan xasinan fa kun maljaaya yàllaahu yow yàlla mi nga xam ne yow rek la wóolu yow rek ya ma def na la nga sama kaaraange li wér anta alladi taasimu man bika atasam min kulli ma ya ummuhu min anniqam laka umuuri abadan ufawidu wa kulla man bikal taja laa yurfadu kon ba mu wax ne suñu boroom yow yaay ki nga xam ne ku wéeru ci yow dana mucc ci lépp luy nuru xeetu mbugal ak mettit wax suñ borom ba tey na ko sama mbir yépp yow laa ko féetale ndax yow yaay koo xam ne ku wéeru ci yow rek deesul man ci moom dara la shakka anna kulla ma adxaltani fiihi fa xayrun li yaadal minani wa kullu ma axrajtani minhu fa daak alayya durrun qad tawajjaha hunaak mu wax ne awma benn sikk sàkk ne yàlla lépp loo xam ne dugal nga ma ci dugg ca loola mooy liggéen ci man waaye loo xam ne génn nga ma ci it lor da caa nekkoon rek waaye ba tey noonu la jàlle wane ne sëñ bi jubluwaayam nga xam ne buy tàllal bu tàllalee loxoom rek foofa la jëm yàlla képp la woon waaye du tàllal loxoom jëmee ci ku dul yàlla nga xam ne yàlla moom la doyloo woon moom la aajoo woon loolu sax moo tax mu tontu tontu bu wedam loo ñi nga xam ne ñoo ko doon laabiire mu daw wuti buur buuri àdduna yi ngir wuti lum fa am ci bi waajuram génne àdduna mooy li mu wax ne qaalul yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kulla maahiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayri lxilmi gayri lilmi waddiini mooy mu ne dañ ne ma jëm ci bunti buuri àdduna yi boo ko defee da nga am ay may yoo xam ne du jeex ba mukk ma ne leen yàlla doy na ma doyloo naa ko te awma soxla ci lu dul xam ak diine ba tey mu wax ne xaniitu bihi rabban waliyan yaquudu li maraami wa inni shaakirun wa faqiru doyloo naa yàlla mi sama borom di sama kilifa moom mi nga xam ne moo may wommatal li may wut maa ngi koy sant te sama ajo yépp di jëm ci moom wax ne yaa rabbi in aataytani fa sukru wa in manaata faridan wa sabru yow sama boroom boo ma joxee danaa la sant boo ma xañee it danaa la gërëm muñ waaye moom duma tàllal feneen wax ne inni ila naafici alwahaabi muftaxirun walam akon li siwal muxni bi muftaxiri yàlla mi nga xam ne mooy jariñ mooy maye moom rekk laa aajowoo jëm ci moom waaye duma aajowoo kenn ku dul yàlla moom laa ashtaki durra lil maxluuqi mujtadiyan min baadi kawni ya abdallahi bilfiqari nee na duma jàmbat lor mbindéef ngir di wuti lu ma am ci moom ginnaaw bi nga xamee ne jaamub yàlla képp la ilayka yaa xayra wahaabin madattu yadi fi lbarri walbahri saqir lii dawil asari annaa amuddu yadi lil xalqi mujtadiyan la daacidan qalbu kullin saara kal xajari ba tey mu wax ne yàlla yow maykat bi rek laay tàllal samay loxo moo xam ci géej gi moo xam ci jéeri ji fu ma man di nekk nan laay tàllale sama loxo jëme ko ci mbindeef yi di sàkku ci ñoom dara rawatina nee ci noon yoo xam ne seeni xol dafa wow ba mel nii xeer noonu la waxe ba tey ne maddu yadi li xayri sil jalaali xindiya min ad dalaali wal idlaali tàllal samay loxo jëme ko ci kudul yàlla ci man ak la ak la maanaam ak sànku la akuk sànke laa ko jàppe noonu la waxe ne maddu yadi ila siwal mughni ictidaa fi sirri wal alani xindiya ictidaa ba tey nee na ma tàllal sama loxo di ko jëme ci kudul yàlla ci lu feeñ ak lu nëbbu loolu nee ak jalgati la ak tooñ la ci man wax yaa rabbi إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما عن مدها إلى سواك أبدا فليسق ضعف مناي عددا nawaytu anni laa amuddu ahad si sarmadan yaddaye yaa ahad yooyu rek la ma waxoon fee la ci fedd li sama borom samay loxo tàllal naa ko jëme ci yow duma ko tàllal jëme ci kenen te it yéene naa ne ba ba faw nag dootul tàll jëm ci keneen ku bokkut ak yow loolu moo tax sëñ bi jàll ne kon ak wakiir loom ci yàlla akuk doyloom yàlla noonu la demee woon gis ne yàllaay jariñ yàllaay lor yàllaay joxe yàllaay xañ yàllaay ki ñàkkut dara ajowut kenn te ñëpp ajowoo ko gis na it nit kiy sàkku ci keneen ku dul yàlla day mel ni ak réer la ci moom mi nga xam ne moo koy def ndax jàpp na ne am na keneen ku am njariñ ku dul yàlla waaye ak réeral la ca kam koy sàkku ndax dana ko wor ba moom moomee mu jàpp ne mën naa jariñ dara te fekk yàlla doo nga fi ne waaye ba tey nee na ak jalgati la ci àq yàlla ndax moom moom lépp te ki moom moo sañ a joxe noonu la waxee ni fal manhu wal i'taa'u qatxan minka laa min siwaaka wa raditu xanka joxe ak xañe daal ci say loxo nekk yow yàlla waaye nekkul ci keneen ku dul moo tax nag loo def neex na ma wax ne inna al ata min al wara xirmaanu wal manhu min rabbihim ixsaanu àgg na ci sa wax ne bu la keneen ku yàlla joxee dafa mel ni ku la xañ ndax dana yàq lu bari ci sa diggante yàlla waaye nag yàlla bu la xañee it ak rafetal la ak jox la wax ne wa in aradta nayla izzin la yarim fal tatlub ittiqaa rabbika al karim kun mutaazisan bi rabbika al jamil wa man taazasa bi xalqin fa dalil nee na boo bëggee am tedd nga loo xam du deñ ba mukk na nga ko sàkkoo ci ragal yàlla te nga dëgërloo suñu boroom moom ndax nee na ku bàyyi yàlla dem dëgërloo mbindeef kooku ci toroxtaange rek lay rekk jamono bi nga xam ne mu ne jamono bi nga xam ne tubaab yi ñu ngi fi di xupp ak ragalloo niti diine yi ci diggante tëj leen kaso ak génne leen réew mi walla rey leen di tiitloo askanu Sénégal ci ñëpp rek am tiitaanga lu metti dal jamono boobu nee na sëriñ bi moom mi ngi wax baati tawxiid yu rëy yële mooy lastu axaafu durra baax dama fa wattu amriya ila rabbi sama ginnaaw bi ma féetalee sama lépp yàlla dal dootuma ragal lor juy bàyyi ci benn mbindeef ba tey mu wax ne lastu amiilu li siwaa ma yurdi rabba samawaati wa rabbal ardi duma jeng mukk jëm ci lu dul luy gërëm loo yàlla mi boroom asamaan ak suuf wala ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني duma ragal duma yaakaar ku dul sama borom ndax moom yàlla moom moo may jox lu bëgg moo may musal ci lu ma ragal ci jamono boo xam ne ba tey nee na ñu baree bari dañ daan daw wuti tubaab bi ndax booba moo nekkoon borom doole ji ñuy daw ngir ragal bëgg mën a mucc di daw ngir bëgg a am lu ñuy wut nga xam ne ñaar yooyu maanaam ragal xupp gi nga xam ne mooy bàyyikoo ci tubaab bi ak xemmem koom mi nga xam ne mooy bàyyikoo ci moom ci ñoom taxoon nañu baree bari nag daw wuti woon leen jamono boobu nag nee na sëñ bi moom mi ngi garde ak gëm yàllam ak wéeru ci yàllam di wax ne fa kay kayfa arkanu lid dunya mujarradatan min ba'di ma bi'tuha fi lxusri wal yusri aw kayfa asku liman xurru bi baxjatiha zawit tanasuhi wat tasliisi wal xasari nan lay jénge nee na jëm ci àddunay kese gannaaw bu nga xam ne jaay naa ko suñu borom wala nan lay jàmbate sama lor tubaab yooyu nga xam ne dañoo waru ci taarub àdduna di ko xëccoo di wax ne yàlla ñett doon ñu perte ñooñu daal nan lay jëmee samay aajo ci ñoom nga xam ne moo tax mu ne sëñ bi dafa amee woon gëm yàlla gu dëgër am wolante maanaam bëgg-bëgg bu dëgër taxaw ci kanam mboolem jafe-jafe yi nga xam ne tubaab yi tegoon nañ ko ci kanam ngir gàllankoor aw yoonam nekk koo xam ne benn jéng ci jéngi àdduna ak daraja ak alal tënku ko woon moo tax mboolem xirtal yi nga xam ne moo doon bàyyi ci tubaab bi ci ay alal ak i nguur ak yi ko nuru ak ragal loo gi nga xam ne mooy bàyyi ko ci ci ñoom ci baat yi ko sëñ bi waxe mu ci diggante xëpp ak xupp gi bàyyi ko ci ñoom loolu nee na lépp rek faale ko woon dawul jàmbat kudul yàlla mi nga xam ne moo mën a faj njàmbatam du aajoo kudul yàlla du jaamu kudul yàlla tey nee na jaamu goo xam ne jamono bi mu koy def ñam nekk ci seen biir ña ngay mooy yàlla ci diggante naan yàlla ñett la wala ñu koy bokkaale wala ñenn ña ay julit lan te nekk ay naafeq yoo xam ne fu leen tubaab bi jëmee ñu jëme fa noonu la waxe ne naareytuhu jalla la daa unaasi taatuhum xisyaanu rabbin naasi woo naa ko moom yàlla ci biir nit ñoo xam ne ñoom ñëpp dafa mel ni seenu topp mooy mooy yàlla yàlla nag daal di koy dimbale ci jaamu ci digg biir mbooloo yo moom mbooloo moom nga xam ne ay bokkaalekat lañu woon ay yeefar lañu woon yàlla dimbale ko nag mu mën faa jaamoo yàlla te yàqaluñ ko dara yàlla dimbale ko ci kaw ay noonam woote bi nga xam ne moom la doon woote tasaaroo tàlli fépp nit ñëpp daw wuti ko yaakaar ji nga xam ne moom la tubaab bi amoon jàpp ne mën nañ koo jekkali tasaare taalibe yi nga xam ne ñoo ko topp yaakaar jooja dal tas woote ba des fi taalibe yi di gën di jàpp ci moom ngañaay lu rëy loolu nga xam ne moom la ko yàlla defal ndax jàppandu gim jàppandu ci moom nag moom la sant suñ boroom wax ne yallaahu yaa xayu alladi laysa yamuut maa lii an issanaa alayka min sukuut fa kayfa askutu an issanaai alayka yaa dal ardi wassamaai am kayfa askutu an irridaai anka walii kunta bilaa idaai am kayfa umsiku an issukri waxat anxamta bilxayri lkasiiri yaa axad am kayfa umsiku an al adkaari waxat asamtani min al asraari wax ne suñu borom yow mi nga xam ne yaay dund te doo fi jóg ba mukk lan moo tax ba du ma la sant lu tax may noppi ci di la tàgg ak di la sant lu tax may noppi ci di la sant yow mi nga xam ne yaay borom asamaan ak suuf lu tax ma lay bañ a gërëm yow mi nga xam ne yaa ma nekkal lu tax ma lay bañ a sant yow mi nga xam ne yaa may tuur xéewal yu baree bari lu tax ma lay bañ di tudd fu ma toll yow mi nga xam ne yaa may musal ci samay noonu lépp rek wane ne yooyu sabab yépp tax na rek duma la fàtte duma denc di la tudd laka alaya sukru bil aqlaami wal qalbi wal wal kalaami li ma am lépp maa ngi la ciy sant muy samay xalima muy sama xol muy sama yaram muy samay wax udiimu sukrallaahi lil jinaani bila taxarurin wala udwaani sant yàlla ba ba àjjana cant goo xam nag du ànd akuk wor du ànd akuk jalgati yaskuruhu kulli bi xayri dadani ila jinaanihi wa safa daydani yaskuruhu kulliya baada qatani ala alladi ixtafa lam yabtuni mu wax ne sama boroom sama lépp mi ngi lay sant ba ba àjjana sama lépp mi ngi lay sant ci lu nëbb ak ci lu feeñ askuruhu sukran yusilu sakka wali araada man araadal fatka maa ngi koy sant cant goo xam ne day dindi lépp luy sikk sàkka moom mi ma tàggatal ñi nga xam ne lor ma ak ray ma rek lañ bëggoon kon mu ne nag jaamuk sëñ bi noonu la demee woon ci gëm yàlla bu dëgër goo xam ne lu ay musiba tar tar tegaloo di fulu maanaam di yokk ak gën a bari du yëngal dara ci gëm yàllam googu lu ci yàlla ak weeru ci moom xam ne moom mooy doxal mbir yi mooy dogal mooy joxe mooy xañe moomoom njariñ ak lor mooy doyluloo mooy musale nit mënul dara benn ci yooyu ndegam nit moomul benn ci yooyu nag ku ci man benn maanaam ku ci def lenn luy nurug manit ci ci manaluk yàlla ci mayug yàlla la ko jële waaye yàlla rek a man yooyu kon nag lan moo tax muy ragal ku dul yàlla yàlla lan moo tax mu war a sukkandiku ci moroomum nitam mu ñàkk solo jullit bi gëm daal nee na du yaakaar du xemmeem ku dul yàlla du wéeru du wakkiirlu ci ku dul moom noonu nag ni la Sëriñ Tuuba meloon ci wàll googu kon ci foofu la jeexale bunt boobu war a tijjiwaat beneen bunt boo xam ne ci wàllu gu mel noonu la ba tey muy ibaadatuhu wa xidmatuhu waaye nag dañuy taxawal noonu darsu bi ba del siwaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima